salli donc bu ñu jógee foofu dañuy ñëw nag ci euh, sa relation ak personnel télévision Futur Média ndaxte foofu nga nekk rawatina oustaz yi yu fa nekk yan relation nga am ñoom euh, relation bi ma am ak ñoom mooy relation bu rafet amu ci kenn koo xamante ne bii am naa ak yow xaar ma yàlla fexe naa daal ba ku nekk cir bi ma war a séq ak yow ma séq ko ak yow xam nga nit moom fi mu la yem nga koy yem li fekk yaa ngi dundee noonu ci réew mi rek da nga am jàmm ki nga war a séqal nuyoo sava va bien yaa ngi ci jàmm fay la nuyoo nga nuyu ko ki nga xam ni loolu ngeen war a séq séqi leen loolu yem ci ki nga xam ne nag war ngeen a séq wootante téléphone demlante lante dikk lante <laughs> ngeen séq ko man foofu laa ko kal fi may ku ne damaa am limite bu ma yem ak yow ñii nuyoo kese ñii nuyoo pilis ñii nuyoo pilis seeti ñii nuyoo pilis woote pilis seeti ñii nuyoo pilis woote pilis fréquenté pilis seeti ñii nuyoo sël waaw <laughs> waaw parce que parce que loolu mooy àdduna ami tey am na ñoo xamante ne bii tey jii ami yow bi booy ñibbi nii am ñoom boo leen rombe salaamaaleykum na ngeen def ngay wax parce que nga leen romb ci mbedd mi ñu toog am ñoo xam nag ça va ci loo ne namm naa la gëj naa laa gis nangam boo demee Dakar Buzz ñi ngay dajeel noonu ngay nuyanteeg ñoom mais mbedd mi ñi ngay romb salaamaaleykum maanaam nit ku nekk rek fi mu la yem nga koy yem waaw nit ku nekk rek fi mu la yem nga koy yem. moo tax relation bu rafet laa am ak ñoom. macha allah am naa ko tamit ak yeneen ustaas yoo xam ni bokkuma ak ñoom TFM. TFM yu nekk yeneen kii. xam nga Iran Ndao nekkul TFM. non non TV la nekk. Mhm. Iran Ndao sama xarit la. macha Iran Ndao sama papa mhm. Iran Ndao sama kilifa la. Mhm. Iran Ndao ku ko fonk laa man ku ko respecté laa man. macha dama ko boole ci ñi nga xam ni. Mhm. damay repéré wu ci parce que fi may gisee nii ku ne daa am lu may cof ci yow. Iran Ndao. Mhm. dafa am lu may jël ci moom. mooy lan. ok mooy li ngay wax. Mhm. nga wóolu ko wóolu sa xam-xam. xam nga Iran Ndao yàlla dafa dogal dafa maîtriser fiqh yàlla def ko ci may. parce que xam-xam du dara lu dul kii mooy jàngale euh, prof mat. prof lan français prof français prof anglais prof lii. Mm-hmm. Iran Ndao tey bu fekkee cadre fiq man dama naan Iran Ndao profu fiq la am na xam-xam ci lépp mais fiqam man daf ma doy. daf laa doy waaw dama koy déglu dama koy dama damay repéré wu ci moom dama ko fonk keneen am na leneen lu may jël ci moom. Mm-hmm. mais Iran Ndao daal fonk naa ko man Oustaz Modou Fall bëgg naa ko fonk naa ko respecté naa ko jàpp naa ko. barki démb dama koo seeti. Mhm. dem ba Tiwaawoon dem seeti ko. mën nañoo jàpp ne kon sa idole la. waaw non idole la sama idole la man ñëpp samay idole la ñuy wax ci diine. Mhm. damay roy ci ñoom. Mhm. mais nag sama style bopp nag laa yor. copié wu ma kenn di nuróolee kenn wala may toppandoo kenn. man amul ku may copier ci ustaas yi di la toppandoo nii naan nii ngay waxee façon bi noono non danaa la sopp nag fonk la respecté la mais copié wu ma kenn na leer. du du ma topp copié wu ma kenn man. d'accord mais Iran Ndao dama ko fonk respecté ko bëgg ko te dawuma ci naada nag dama ko bëgg. dama koo bëgg waaw. yàlla ko def damaa dem ba Tiwaawan seeti ko. Mhm. man su ma demee Tiwaawan su ma génnee raw du sëñ Babacar ziar ba pare comme moog daara ji ñoo jàkkaarloo damay dem ci daara ji ziar ko nuyu ko saafanteeg moom. parce mhm. que démb rek laa fa jóge macha allah mu yëkkati xaalis bu baari enveloppe la ma jox def ci xaalis bu baari jox ma te séntu ma woon loolu ci moom man li ma doon séntu mooy sopp naa ko bëgg naa ko rek yenn saa yi nga dajeeg ni circulation yi mu ne Oustaz Modou Fall dimbali ma ngir yàlla nga wàcc ñu fotow nga mm-hmm. wàcc lo loolu la bëgg te loolu mooy sedd xolam man lii sedd sama xol rek mooy dem naa seeti ko toog naa ak moom conseillé na ma te ku ma gis ci borom xam-xam yi nag soxla naa sa xalaat parce que lu mu bon bon yaa ma jiitu ci métier bi. te ki la jiitu ci nekk moo la naan. Mhm. fii la lampe bi nekk. am na solo mais daal Iran Ndao ku ma fonk la. macha allah yal na yàlla lafal leen cat donc mi ngi noonu oustaz ba nga yëgee woon ne Kouthia dafa amee coronavirus bi ngeen bokk même organe naka nga ko dundee. ni ma ko dundee mooy ñaanal ko ak itam ñàkk ko koo yéene parce que dafa baax. Mhm. boo seetloo man ñi muy gën a tooñ ci laa bokk. surtout koor gi. muy sama xarit man bu ma duggee TFM balaa ma dugg fa may fa ma tax a jóg il faut ma jaar ci ci ci saalu Kouthia xool ko ndax gont si xëysi na wala déet nuyu ko saafonteeg ay xaritam Kouthia dafa baax kenn yéenewu ko feebar soj rek soj kenn yéenewu ko ko waxuma laak nag ñu tudd ni dafa amee corona bi ma ko mm-hmm. déggee li ma def mooy ñaanal ko mm-hmm. yëkkati sama téléphone envoyé ko message woo ko téléphone jot ko ñaanal ko massawu ko mm-hmm. nemmeeku ko te ku xam ni it jullit nga comme man te ma wóolu sa ñaan danaa la ni boo jullee bul fàtte sama waa ji ci ñaan waaw moo tax bi ma déggee ñu ne tane na ma woo ko. macha ñaanal ko. Mhm. loolu laa ko dundee. Mhm, am na solo ba nga ko wooyee yan kàddu ngeen échanger si li nga xamante ne si ñeel feebar kàddu yi ñu échanger rek mooy tooñ ko ni ko sama waa ji nag ñëpp la namm Sénégal ñëpp dañ laa namm dëgg la mu ne ma bi ma demee hôpital mhm. nit ña ma fa dajal ak médecin yi dañ ma doon tooñ ne ma àq Oustaz Modou Fall moo la dal <laughs> mu ne ma loolu lañ ko doon wax uh-huh. ndax moom dafa baax dafa am ñëpp Sénégal amal ñëpp mhm. ku caa kilifa yi kilifa yi dañ koo fonk kilifa yi nu yi nu gën a respecté ci réew mi dañ koo bëgg dañ koy bàyyi xel ku mel noonu ci réew da nga koy bëgg a ñaanal mu gudd fan. parce que am na koo xam ne mi ngi toog saalam am problème. Mhm. mer bu seetaanee Kouthia lu mu mer mer dana reetaan te reetaan dafa am lu muy dindi ci nit. dëgg la moo tax dundam dafa am njëriñ ci société bi. macha allah dañ koy ñaanal rek yàlla gën koo may wér. ci daraja yonent bi. allahumma amin diine wax uh, ci defar nit la nga xamante ne da nga ko koo defal si sutura defal ko ko si sa yéene uh, ba jëmmi jamono nga toogaat di ko yeebaane. yàlla sax bëggul yonent bi nee na. Mhm. sarax bi gënal yàlla. Mm-hmm. mooy bi nga joxe ci loxo ndeyjoor. te càmmoñ bi yëgu ko. càmmoñ bi yëgu ma romb ami mu toog. Mm-hmm. ma war ko sarax ñatt téeméer. Mm-hmm. yonent bi nee na bokk na ci point yi yàlla wax ni juróom-ñaari jikko yi ku ko am ëllëg yàlla keral la ci keppaaram nga. bokk na ca juróom-ñaari yooyu bi ko yonent bi di siite koo xam ni booy saraxee ci sa loxo ndeyjoor sa càmmoñ du ko yëg. loo cey déggee mooy nit lépp looy def ci àdduna na am sutura. moo gënal yàlla koy dimbali dimbale ko rek te yàlla tax. am jaratul wax jaratul tudd jaratul amul sens parce que bu fekkee yàllaa taxoon ngay def rek. Mhm. pour man tudd gi dootu ci am njëriñ. te am na ñoo xam ne nag loo leen defal boo ko tuddatee rek dootu leen neex te dañ koy suur. Mhm. bëgguñu ko yàlla dafa bëgg kuy suturaal nit mhm. parce que yonent bi moo ni man sattara qawman mhm. sattarallaahu lahu yawmal qiyaama mhm. képp ku suturaal nit ci àdduna bu ëllëgee yàlla dana la woo nga ñëw mu ñëw mu a la yaa defoon nangam man yow ñoo ko yëgoon suturaal naa la ndax ami ma nga suturaaloon ci àdduna am na solo donc ba nga yit gisee woon lu amoon si diggante Ahmed Khalifa Niass ak oustaz Assane Seck nam ko defoon en direct sur TFM naka nga ko dundee ah xam nga man nag diggante boobu li tax du ma ci mën a sori mooy. Mhm. ñoom ñaar xamante nañ. Assane ak euh, Ahmed Khalifa. Mhm. xamante nañ. Mhm. du du jour boobu mooy seen première gise ñoom ñaar. xamante nañ. yaa ngi dégg Ahmed ni ko euh, Assane ni ko doxal naa la yónneen ba tàyyi. pour man ku lay yónni chaque jour. xamante ngeen. dëgg ñoom ñaar xamante nañ te. Euh, lañ doon waxante waxante nañ ko foofu man du ma ci mën a sori. Mhm. parce que comme waxuma ko man. te bu doon man la xëy na danaa xam nan laay def. Mhm. te man tam yàlla ngi may suturaal nag ami wax dëgg yàlla. Mhm. du ma ni kenn du xam sama soxla de du ma ko wax parce que damay am problème. yaa ngi dégg maa ngi wax ci koor gi naan catu nañu ba conférence yi amatul. <laughs> am na ñoo xam dañ may defal teraanga. macha xam nga ku ñuy wax Masata Ndiaye. Masata Ndiaye mooy magu Abdou Aziz Alé Ndiaye. <laughs> Masata njaay defal na ma teraanga ju rëy. yónnee ma xaalis bu bëree baree bëri. Balla Gaye numéro 2 mii ngay gis. <laughs> defal na ma teraanga yónnee ma xaalis bu bëri. macha allah Lo mbër mii ngay gis defal na ma teraanga jox ma xaalis bu bëri kon du duma ni man kenn du xam sama soxla maanaam nit dana la defal teraanga ta waxoo ko sa soxla. mais lii xam sama soxla day li fekk maa ngi ànd ak sama xel mii. <laughs> dana néew de. parce que ami waaw parce que jamono bii lu la ne defal nga yëg ak nga ñàkk a yëg am na ci ñoo xam ni am na ci ñoo xam ne ñu la defal même boo fekkeewul boo génnee ñu ne diw ñëwoon na fi moo tax yappari yappari bureau jàmbur kenn mhm. waru koo def mhm. ngay am da ngay am personnalité mhm. boo dee lekk ngooñ sax amal ful la mais tey bureau bu nu tourné gis la fa nga dem dama am problème nangam nangam ñooñu dootuñu la respecté da ngay seen salle la ñuy toog tegale seen tànk nga génn ci télé ñu koy wax seen jabar ak seen doom voilà la jeune oustaz là daaw ñëw na bureau di ma may jox naa ko cinquante mille le oustaz là dañuy wayaan mhm. dañ lay fowee ñàkk loola fayda ci lu ko jarul lu mu metti métti métti métti gardel sa dinité ak sa personalité lu la yàlla gis nga yonent beeg diine ji képp ku yàllay kese tax ngay wax mhm. yàlla dana la tàggatal ay jàmbur ñu lay teral te doo leen ko laaj ku ko gëm yàlla teral la mais ku ci sonn sonn sonn am ay problème lakkal ñëpp. ba ku la séen woo secrétaire am ne ko bu mu agsi wala nekkuma fi. yaa ngi fawee diine ji te yaa ngi yeblu ustaas yi te loolu warul am ci sunu ci lii ñuy def. Mhm. fulla fayda personalité ak sa ngor lu mu métti metti nga ànd ak sa ngor kenn bañ laa yeb. ku la fi mhm. may cinquante mille bu subaa mu wax ko ay mbokkam bureau boo fi dem bu subaa ñu ne secrétaire bi ñibbi seen kër ni pourtant day ñëw sax jur di seet diw. seetiwu ma kenn ñaanu ma kenn soxlawu ma kenn ku ma teral nag ma jël mais pour yeppar yeppar rek bëgg lu la neex ak. Mhm. ma ko defal kenn. te boo sañoon aussi kenn du ko def. mukk man bu ma sañoon kenn du ko def bu ma sañoon ku nekk la ngay am na la na doy. Mhm. mais daal diggante Ahmed xalifa ñas ak oustaz Assane Seck daal li ma ci mën a wax mooy ñoom ñaar xamante ne. ñoom ñaar xamante ne. waaw mënu ma cee sori mënu ma cee xuus mënuma mënu cee wax lenn. <laughs> en tout cas daal ñoom ñaar xamante nañ nañ ko géréel seen bopp. loolu leer na ñu wax si di nga tànk di gi si euh, diggante tarixa yi donc ñu koy nemmeeku ñu ne télévision yi ñoo ko sabab surtout si koor gi lu ñu doon nemmeeku naka nga gisee loolu oustaz. ni ma ko gisee mooy Sénégal li nu bokk mënuñu koo séddoo. Mhm. seulement que nag ñiy wax ci tarixa yi ñoo war di mesurer seeni kàddu parce que ami mhm. fii kenn dofu fi ku fi attaqué pas jàmbur boo ko laalee nit ñi yëg ko te li gën a nekk yabaate mooy di waxtaan di tudd sëriñu jàmbur xanaa xamoo man d'accord naa booy waxtaan taggal sa sëriñ ràngal ko garaat bu la neex waxal ci moom lu la neex neel du nelaw guddi aras lay fanaani te Serigne Cheikh Tidiane si ne woon na sàcc rek moo dul nelaw guddi. Mhm. parce que sàcc bu ñëpp di nelaw moom mi ngi ci kër jàmbur yi di tëb. mu ne kon du ma nelaw guddi jarta tiitaroo parce que sàcc du nelaw guddi. Mhm. li ma d'accordul mooy wax ba cité Serigne jàmbur. man d'accord naa sama tariqa nangam nangam sunu sëriñ nangam nangam mais li ma d'accordul mooy sama sëriñ kii nu mu tudd. Seydou. sama sëriñ moo mën Seydou tudd turu Seydou direct d'accorduma ci bu bu kenn tudd turu jàmbur bu tiijaan bi di waxtaane alaaji Malick na wax baaxu alaaji malik mais bu mu cité beneen sëriñ tudd turam bu murit bi di waxtaane sëñ Touba na ca yem mhm. mais bu mu cité turu jàmbur bu kenn sitee turu kenn mhm. waxal nag loola neex sa sëriñ takkal ko garaat bu la neex mais bul tudd turu jàmbur parce que loolu boo commencé am fayantoo day am parce que léegi réew mi li xew mooy. Mhm. bu tarixa bi waxee lu blessé tarixa bi ndawi tarixa bi dañuy génn wax lu tonton te day am. Mhm. te su boobaa face à face lay doon ku ne di wax te loolu jëmalul diine jeeg l'islam bi kër. Mhm. li nu bokk mënuñu ko séddoo Alaaji Malik ak Cheikhul Khadim. danoo àndoon démb ànd bu rafet. sëriñ Tuuba ni ko wa man yurid nayla asrarin wa maarifatin fala yufaariq rimaha cheyqina omara wa mattaqastu qalilan kuntu arifuhu illaa jaaltuka fawqa alkulli bi rutubi muy rafet ahmadul xadim ne woon na seydil haj malik bu dee am naa xarit bis ni ki tey xarit bi ma am ci wàllu àdduna bëgg a ànd ak moom ba ilaa yawmi diin te sunu xaritoo dara du ko dindi benn xarit laa ci am muy alaaji malik mm-hmm. alaaji malik ni tariqa yëpp benn la boo ca jàpp mu yóbbu ci yàlla seriñ tuubaa ni wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yaxiida tariqa boo jàpp te bàyyi woo ko mu yóbbu ci yàlla pour pourquoi ñun ñee àndoon ànd bu rafet ñun ñu bokk koo yàq ñun li nu bokk mënuñu ko séddoo mais Sénégal ngay gis kun ci war a waxtaane sa sëriñ comme Barça Real gars yi 11 heures la ñuy commencé stoppement yi <laughs> commentaire yi sa waaye bu mu ko seral tey na tàng Sénégal li nu jàppee lu mooy gis nga tey boo ñëwoon di waxtaan ci sa sëriñ sax di waxtaan mm-hmm. naan daa noon a jaamu yàlla daa ma noon a julli daa ma noon a jàng alxuraan gars mm-hmm. da koo seral tey quoi yii muy wax nii dafa sedd tàngalal affaire bi tàngal bi mooy gaaruwaale heure boo déggee diw tàngalu ko mooy diw gaaruwaale wul li nu bëgg mooy kuy gaaruwaale di tooñ sëriñu jàmbur di wax lu la neex te naa la xamal leen de mm-hmm. wali yàlla yi ku wax balaa leen <laughs> da nga wéet parce que sinon du baax ci yow nitu yàlla kenn du ko tooñ man Tiijaan la taaliba Alaaji Malik la man mais Cheikhul Khadim kenn ëpp ma ci moom cofeel damay jàng ay téeréem damay damay damay damay gëstu mbindam parce que am na ñoo xam ne dañ ma sopp man bëgg ma te yàlla tax te bokkuma ak ñoom tariq te ñooñu waruma blesser seen pas-pas mm-hmm. tey lu nu ma sopp sopp bu ñu déggee ni Oustaz Modou Fall wax na ci yoonu murit nangam lu mu war wax dañ koy baax parce que Serigne Touba moo leen gënal Oustaz Modou Fall man mboolem nitu diine yi ne ci réew mi ñëpp laa sopp gannaaw ba am naa naanuwaay. Mhm. ñëpp xam nañ ne naanuwaay bi ma am mooy El Hadj Malick ak Tiwaawoon. Serigne kër Sy Mansour xalifa général de Tidiane mooy sama kilifa. Mhm. mooy sama référence. Mhm. Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Aziz moo ma jox tariqa bi mooy sama kilifa. mais sëriñ sëpp laa nangul leen yàlla may ma demee Touba damay damay damay damay damay yëg Cheikhul Khadim li ko yàlla defal bu ma demee Kaolack damay yëg la ko yàlla defal Cambérène gii rek du su may dem TFM du ma romb seen barabu Seydina Issa heure bu ma ko rombee freiné laay def dugg julli ñaari rakka ñaan dem sama yoon. sëriñ sëpp laa sopp. Seydina Limaamu dama ko sopp sopp sëriñ sëpp. di waxtaane mag ñu baax ñi ci réew mi yëpp aw ma frontière nag yamal fii waxal fii loolu moom kenn du ma ko wax moom. fii ma bëgg lu ma xam ci nit ñu baax ñi dama koy wax. am aw ma fenn nag frontière wala sens interdit wala nangam. Mhm. am naa wasila am naa kër am naa naanuwaay mais ñëpp laa sopp mais bu ñu avertirul ñi yor seen làmmiñ yu rëy yi di wax ci di gaaruwaaleeg di tudd sëriñu jàmbur di tooñ réew mi ci yëngu la jëm te guerre civile bis buy amaat mën naa jóge ci tariqa yi ku ne loo xam ci lu baax waxal ko sa sëriñ mais bul blessé pas-pasu jàmbur. am na solo te mat naa bàyyi xel oustaz euh, foofu leex na nañ. allahumma salli ala muhammadin sayyidul arabi